Bienvenue sur Salam Vision. bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabidumi wala alihi wa sahbihi wa xdimi wa sallama taslima auzu billah bisimilahi ni wala yàlla téléspectateur yi nga xamante ni yéen a baaxoo suivre télé bi nga xamante ni mooy Salam Vision ñu ngi amal mbégte feggowaat yéen tey rawatina suñu émission bi nga xamante ni xam sa démb dafa am solo lool ba tax na concept émission bi tamit noonu lañ ko tuddee xam sa démb ba tax na tey dana ñëw seet si suñu kilifa seet si suñu sëriñ waaye seet si suñu doyen yoo xam ne xam naa ne bu présenté woo ba ca kanam di ngeen xam ni nun lii ñuy def moom suñu waajur lañu jur nañu ci yar ñu ci bokkandoo ko ak suñu ay nijaay yoo xam ne kenn ku ne xam na leen ci réew mi waaye du def rek lu dañ koy nuyu bàyyi ko mu présenté wu daal di nuyu askan wi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan kon doyen Faye bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Hmm. maa ngi nuyu euh, ñëpp. Mm-hmm. di sant ñëpp mm-hmm. di ñaanal euh, ñëpp weer gu yaram mujj rafet yàlla musal ñu ci musiba bala amiin euh, maa ngi rafetlu euh, seen teewaay mm-hmm. ci événement yu mel nii nga xam ne daf ñuy fàttali démb daf ñuy fàttali suñu jeetaayu maam Euh, maa ngi leen di sant ma ci liggéey bi hmm. ni nga ko waxee day am nañ ci jéegu tuuti hmm. ci wàllu gastu cosaanu séeréer hmm. dama ko yàgg euh, def fekk awma Euh, télévision comme euh, euh, fi ma jàllale événement yi mm-hmm. fekk rajo daan nga dem ci benn dëkk sax benn rajo rek moo fay am mm-hmm. su émission amee nit ñi dem déglu ko ci mm-hmm. wàllu théâtre ak yu demee noonu waaye sama jubluwaay mooy gastu cosaanu séeréer te ndax fekk na samay maam euh, di ko def mhm. ñu jàngal ñu lu bare ci loolu mhm. sama euh, maam ki juru sama pap mhm. mu ngi gaañoo le 9 euh, novembre 1955 ci année boobu aussi laa dugg école mu nekkoon première école primaire à Popenguine waaye fekk amoon na école bu ko jiitu te mu nekkoon école u làbbe mm-hmm. mu jàngale ñeenti at à Popenguine mu taj euh, euh, bunte yi mm-hmm. ñu soog a ubbi nag euh, li ma gën a poussé pour ma gastu cosaanu séeréer mm-hmm. dama daan toog ak sama maam Euh, ñu di ñu wax lu am sol ci loo xam ne suñu toppee loolu. lu bare dinañu xam ne cosaan lu wóor. dañu daan toog suñu demee ci reer ñu reeree ba pare. ñu ne bu kenn euh, jóge fa nga toog. Mm-hmm. borom kër gi toog. daf may rappeler sax ñu ne tey euh, député dañoo am réunion assemblée nationale. Mhm. ñu toog seet ci li xew ci suba ba euh, heure bi muy waxtaan ak ñoom guddi. Mhm. kër gi lan moo ci am loo xam ne euh, jubul. Mhm. bu fekkee ne loolu am na borom kër gi. joxe ndigal ne lii am na waaye bu mu amati. Mm-hmm. mag ñi noonu lañu daan diriger kër. Mm-hmm. ñëpp nekk benn nag. Mm-hmm. nga xam ne lu la dal naqar boo am bala nga yëg ne am nga naqar waa kër gi ñooy jëkk jox ci loolu. loolu dañu doon dëgg séeréer. Euh, sama gëstu bi nag yàlla ubbil ma ci. Euh, xeewal mm. ndax dama ko bëggoon mm. mu jaraloon la bi ma duggee banque société genre de banque mm. le 27 juillet 1971 laa dugg banque ma boole ko sama gëstu bi ci séeréer dem naa dëkk yu bare ci Sénégal ci gàttal daal région yi am ci Sénégal yëpp dem naa fa def reportage de Saint-Louis de Ziguinchor ak feneen loolu ma dajale ko li ma mayoon euh, doole ci loolu mooy ñi mel ne euh, Louis Diène Faye El Hadji Sarr ndax ñoo ma jiitu ci loolu ba bi ma xamante ak Martin Faye mhm. yàlla def ci gëstu ñu am benn émission ñu daan ko def comme veille mu daan jaar ci RTS guddi hmm. émission boobu jaraloon na ñu bari aussi di ko déglu ba une heure du matin fekk na li tax ñu daan def loolu ni euh, ñu daan fekk mag yi hmm. ndax dama daan def reportage su ma programme benn dëkk directeur bi affecté ma technicien buy dem jëli waxtaan bi hmm. ci seen Nagra kat ak Toyota RTS hmm. ma def ko ci tous les villages yu village par village hmm. que ça soit séeréer Safeen ñooñu ñoo dëkk région de Thiès li ci ëpp ak département de Mbour séeréer noonu Euh, soo ko déggee sax ñu bare dañoo xamoon euh, li tax ñu tudde leen séeréer noonu ñoom duñu noonu noonu baatu olof la séeréer dafa bugg a cosaanam fu mu dëkk day bugg unité day bugg a jàmm ah, bi ñu dëkkee ci euh, seen lieu yooyu su fekkee ne am na gan ñiy jóge feneen ñu daan éviter ne ñi suñu yàggee ci suñu biir mën nañu yàq lu bari mën nañu changer suñu culture. Mhm. nga gis séeréer yi gën a organisé wu. mu jaral leen quelque fois sax ñu def déplacement. Mhm. comme loolu neexul gan yooyu ñu ne ñii de suñu noonu la séeréer turu séeréer noonu foofu la euh, jóg. ndax noonu def naa émission payku. Mhm. ci dëkku Martin Faye mag ñi loolu la ñu wax. dem naa émission wango def naa émission coonaax dem naa Fandène def naa fa émission def naa fa émission ci duuñaan mu tomboon ci décès Cheikh Anta Diop ba technicien bi ñu waroon a enregistré keroog dafa am retard mais bi ñuy commencé i était déjà sept heures timis passé la ñu démarré ba neuf Euh, cosaan dafa baax mhm. su fekkoon ne tey lii nga xam ne dafa wàcc ci àddina bi yëpp mhm. comme feebar bi mhm. mag ñi daal nañu gis lu mel noonu avant mu ñëw ci xam-xam bi leen yàlla joxoon ñu tëddee uti ñu ne ah, am na feebar buy war a wàcc ci dëkk bi nga gis mag ñi suñu xëyee nekk ci loolu naka la ñuy euh, def ba loolu du du wàcc ne mm-hmm. su wàccee du jël bakkan mm-hmm. ñu gisee euh, ñu commencé dajale ay xobu garab ay mm-hmm. reenu garab ak yu bare yoo xam ne day ànd ci yu mel noonu ñu préparé ko yóbbu ko fi ñuy tuuree mbalit E, séeréer di ko e, raandu su ñu yóbbee loolu ndox xobu garab ak leneen xele yi ñu jóge kër su ñu ñëwee mag ñi e, wis leen ne day fekk ñaan nañu ñaanu cosaan waaye ku ñu wis ku ñu sotti ndox moomu mhm. doo geestu ba nga dugg kër mhm. su xele yi pare mag ñi topp ci loolu. moo tax feebar bi su fekkoon ne ne suñu taamu maam amal nañ ko solution bu yàgg. mais xam nga civilisation moderne. ngay roy. loo xam ne su yàggee yow dina la ñàkk loolu bare. loolu bay war nañ ci bàyyi xel. kon bu bu la dégg bu baax maman abandonné bi nga xamante ne abandonné nañ suñu tradition yi fi mu toll nii daal bokk nañ li tax moom mënuñoo xeex feebar à 100 pour cent aussi. Eh, li ma la wax noonu la ndax mhm. eh, li may wax nii ñi may dégg mhm. ci ay mag mhm. dunda nañ ko dama daan toog ak sama maam ba guddi mu yee eh, mu yee sama beneen morom ci kër mu ne jox leen ñu jóg ñu ànd ak ñoom ci guddi googu di dem ci taatu garab yu mag yi mhm. mag ñi bala ñuy yegg foofu dinañu nuyo mhm. nuyoo boobu nag xëy na dinañ leen fay euh, waaye am na yu bare day wax rek mhm. da ci ëpp aussi su demee ba nga xam ne dugub bi nawet euh, baax na bala ñuy lekk dugub bu bees mhm. dañuy def seen ngalax yu cosaan yooyu suñ ko defee ba pare mhm. euh, ñu préparé ko def ko fi ñu ko war a def mhm. su guddee ma yenu lu mel noonu seen lekket woon ak sama xarit boobu ñu jiitle ak su maam dem ci taatu garab yooyu wala dem ci armeel yi bi ma ci gën a remarqué bi ñu demee bi nga xam ne jub nañu taatu garab mhm. sama maam dafa nuyu nuyu euh, jàmmante ne seen wàll ci nawet bi mhm. euh, moom laa leen indil tey mhm. loolu ñu dem déposé ko fi ñu ko redéposé suñu ci su bër setee lan nga xam ne dafa fanaan comme ngalax mhm. ci àll ba ci taatu garab mhm. ñu dem jëlaat loolu ñu indi ko ci kër gi suñu ñëwee loolu dañ koy mélanger ak leneen ñu jox ko xale ñuy lekk ko mhm. mais yu mel noonu feebar yu la attaqué jàngaroo fu mu mën a jóge suñu maam yi de yàlla maye na loon pouvoir boobu euh, xam-xam boobu ndax dëkk daan nañu bala ñu la koy jox foofu ci ñun séeréer dinañu xam ne ndax yow mën nga aar kër eh, dëkk bi su fekkee ne mën nga ko aar ñu ne tànnal nañ la tànnal nañ la nga yore dëkk bi comme su ma dëkk Kignangour yow nga tànn say conseil mag ñi dinañu amaat beneen jeetaay ak yow mm-hmm. ci foo xam ne xale du fa fekkee mm-hmm. jigéen du fa fekkee mm-hmm. bu boobaa lañuy ñuy désigner conseiller yooyu ne Kignabo bi ñu dëkk nii am na euh, fukki yoon fukki bunt entrée ñu jël kenn ne ko yow yaay taxaw ci yoon wi guddi ak bëccëg sa xel dara bañ a dugg ci dëkk xam nga da su demee noonu euh, tey tey tey dara du am ci dëkk waxuñu sàcc waaye wàllu leneen dara du dugg te ñun euh, mag ji dañu daan toog ci seen nekk ba guddi li nga xam ne yàlla may na leen xam-xam boobu day mel ne dafa am looy wax ak ñoom dañu di ko dégg ci loo xam ne aussi euh, xëy na yenn yi sax dañ ko daan doon ci seeni maam ñoo ñu dunda euh, daal na feebar su jawee comme dañ euh, koy wax ngaas ak leneen ak leneen nga gis eh, borom eh, kër gi aussi mm-hmm. li muy def mu def ko woo xele yi mm-hmm. eh, loolu suñ ci paree mm-hmm. feebar boobu du jël bakkan parce que dañu daan wax ne xele warul dee yooyu waxu mag la lan la def yàlla ba quinze vingt ans vingt cinq ans muy dee lan boobu dañ ci mag ñi dañ ci daan jël ay prévention mais dañu daan jël prévention euh, ñu seet fan ne yëpp lan moo war a dal kii ba muy faat ba te euh, bu yàggul sax xale may mayo euh, tax mayoo xale yi daan nañu toog suñu mag ñi suñu suñu événement nare am comme mm-hmm. football ñun am nañu ay garab yoo xam ne foofu la ñuy tase. Mhm. am na ñoo foo xam ne mag ñi rek ñooy dem xale du dem jigéen du dem. Mhm. ñu ne waaye bi ñu am suba na ngeen ko gisee. làmba bi ñu am suba na ko gisee. Mhm. mag ñi ñooy wax foofu fañ koy waxee nag guddi lay doon. ah suñ ko defee ah ñu toog ñu ne yow yow lan nga gént ci événement bi nar a nga demal gént naa ne dëkk bi. football bi suba euh, ñetti bi wala ñeenti bi dina am waaye euh, match nii euh, dina mujjee am match nii ou bien ñu ne ñun waa Kiñaabo équipe bi ñu footballé moo ñu ëpp doole dinañu door yooyu mag ñi foofu la ñuy réglé ku ne wax la nga gént mm-hmm. ka nga xam ne moom mooy kilifa ñun ñëpp ku gént da ngay dem ci moom nattale ko fi mu toog mhm. su ñëpp paree nag moom mooy analyse mhm. ne seen génte yëpp li ngeen wax dëgg la ñun dañu waroon a gañe waaye dinañu fexe ba match bi am gàllankoor tuuti ci seen côté mhm. euh, mu match nii loolu seeree noonu lay dund ba pare dama dama damay gis tamit euh, feebar yi ni muy xewee ci jamono léegi par rapport ak bu njëkk ba feebar yu bëri yi xew léegi xewul woon bu njëkk ba non euh, xewul woon mooy li ma wax rek. Mm-hmm. gis nga yàlla daf dafa ne. Mm-hmm. bindul dara. Mm-hmm. sans dara. ñun ñooy toog nga jël sa crayon di dessiner. da nga nam dara ci dessin boobu. waaye yàlla lu mu bind. garab ne am na lu muy faj. muy joxe kéemaan. ne am na feebar yi nekk Chine. Euh, li leen di faj Sénégal la ci mhm. exemple Afrique mhm. am yoo xam ne waa Sénégal duñ ko am ñu nga Mali mhm. garab boobu foo ko am te mën naa la ci citer lu bare tey mag ñi dañu daan toog ba nga xam ne nawet te ngi bugg euh, euh, dugg joom ñu santaane nañ leen wutal ay xobu garab ci biir dëkk bi yooyu su ñëwee ñu togg ko suñ ko toggee xale naan ci sangu ci loolu feebar du la jàpp sa yaram du ko yëg ou feebar ñu ne waaw lii lan moo ko dal ñu ne kii de seytaane moo ko jàpp te jàppewu ko dëkk bi moo ko jàppee feneen mag ñi ñëw ah, ñu am fu ñu lay suñ la yóbbee foofu bala nga fay jógee di nga tane te yaay waxal sa bopp ne li ma mu mhm. ma dalee diggante Pikine ak Guédiawaye donc mhm. loolu am importance fi mhm. ma nekk nii euh, def naa une semaine ci reportage Fadial bi ma demee man ak euh, Liu Diène Faye ñoo fa tase euh, mu tomboon aussi ci gastu rek c'était le 11 mars 1989. 11 cent 89 laa demoon Fajal def fa une semaine. Diouroup mhm. dem naa fa. Mhm. Euh, dem naa euh, maanaam ci gàttal ndax wax naa ko au départ ne. Mhm. Euh, toutes les régions du Sénégal. dajal nga ko dem naa fa def reportage. même mooy li fi ne bu ma la bu baax wër boobu nga xam ni def nga fa reportage gëstu boobu nga doon gëstu dafa mel dafa mujj dem ba dafa daje maanaam xanaa lu suñu borom nangu ci yow xam ni bëgg bi nga ci amoon ba doon def gëstu boobu noonu moo tax mu mujj laa dajal lekk ci jël xam-xam bi nga yor tey bi ba tegaat ko ci say loxo nii ba nga ciy dimbali jàll. waaw euh, dañu ne. Euh, ku yàggee ci teen rek. baat fekk la. baat fekk la. waaw waxi mag rek. mag ñi euh, daana ba la ñu lay jox xam-xam. Mm-hmm. dañ euh, dañ lay xëcc ci seen bopp. ñu mm-hmm. di la seetlu ci fànn yu bari. Mm-hmm. ngay ànd ak ñoom. Euh, souvent ñu ne la sëggal nga sëggal ñu ne la foral la nga for ko ñu ne ko nii nga koy. utilise hmm. nga bi ma dëkkee eh, Gueule Tapée 1963 ba 1976 laa jógee Gueule Tapée dem rue 23 angle 26 hmm. de 76 laa jógee foofu ñëw Géejawaay hmm. mais dama toog ci sama eh, suñu buntu eh, kër Gueule Tapée ci mbedd mi jékki-jékki benn góor romb ma nuyu ko fa ma toog moom mu nuyu ma mu ne ma kaay bi ma ñëwee mu ne ma foral la ci kaw tali bi ma ko foree mu ne ma soo demee nii nga ko ko defe nii nga ko defe mu ne soo ko defee benn feebar du la def mais gisal mag ñooñu te xaw ma ko mhm. te gis nga àddina Euh, nañu bàyyi xel suñu culture culture boobu lépp a ngi ci biir mm-hmm. ndimbal da gis séeréer ñoo daan duggee euh, dugg nawet mm-hmm. am ñoo xam ne bi ñu duggee feebar mën na leen dem mm-hmm. ba du ñu mën a dem tool mais suñu demee ba nga xam ne lépp ñor na ku ne ci biir dëkk bi walla biir kër gi di nga booj paanu eh, dugub mhm. nga bàyyi ba guddi ñëw eh, def ko ci wanaku ki nga xam ne bokkul woon ci gis nga li yàlla sant solidarité bi ne sooy saraxee sa loxo eh, ndeyjoor mhm. na nekk umpa ci loxo càmmoñ mhm. buggu ñoon manifeste ne bala nga may nit dara ñëpp toog nga yëkkati jox séeréer nag loolu daf ko daan béy. macha allah euh, mu mel ni gis naa ni xam naa ni foofa laay jeexalee jotaay bi rek ngir bañ a tënk ndax nit ñaa ngi lay toog di xaar euh, gis naa ni gis naa ni bi xam-xam bi nekkee ci yow yi tamit xaaruloo ci nit ki lu mu am ak lu mu indi pour nga defal dimb taxawu ko ci li nga ko war a taxawoo yow nekki boo xamee situation bi rek automatiquement euh, tu te mets à l'épreuve yaa ngi nekk ci épreuve bu kii naka laa ko war a mën a taxawoo ci aar ko ci dimbali ko ci loolu tam lan moo ko waral fi mu toll nii. waaw li suñu maam hmm. man ngeen nekk euh, fukki nit mais dañuy tànn koo xam ne mën nañ ko bàyyil xam-xam ndax dañu daan ba ñu jox la xam-xam nga di ko xeexee nit hmm. suñu xooleen ba xam ne euh, am na ku ko mën a yore hmm. foofu lañ lay tànne jox la ko mais liñ lay jëkk a wax mooy nga dimbali Eh, nga dimbali néew ji doole man de ku ñëw sama kër soo fekkoon ne tey tey dañ la yebal fii nga ne dama ñëw woon rek pour xam ndax dañ ma tegtal fii nga wax sa soxla dama ne loolu moo la woon sa itte waaye jëlal lii rek ba beneen jamono saa yoo ñëw loolu mooy xam-xam waaye nekk di wax ne lii hmm. lii te xam-xam kenn waru ko bàkk hmm. bàkkoo xam-xam hmm. nañu ngi bàyyil yàlla mm. li mu moom soo ne tey mën naa faj feebar bu ne mm. kon yàlla lan la mën <laughs> yàlla euh, ne muy maye xam-xam mm-hmm. su fekkee ne ki ñaabul ba ma dëkk am na ku fay faj lii mm-hmm. day def jiloor am koo xam ne lii lay faj mm-hmm. ki nekk ki ñaabul dina soxla kale kale dina soxla loolu moo tax yàlla euh, différencier euh, couleur nit. Mm-hmm. nee na su ko neexoon ñëpp nekk nit ñu xonq. Mm-hmm. ou bien nit ñu ñuul wala ñëpp beneen couleur. Mm-hmm. waaye mu ne ni ma leen wutalee. loolu pour ñu gën a jàngat yàlla. xam mooy kan. pour xamante bi. Euh, loolu mooy. Souris aussi. Mm-hmm. Euh, jour Arafat. Mm-hmm. est-ce que di nga xamee borom alal ak ñi amul alal. tëni ba du benn. benn képp. Hmm? Mm-hmm. mais yàlla moom ñuy jàngal. ndeysaan. soo nekkee président. soo nekkee pauvre. jour Arafat même tëni. même tëni boobu nag. nañ ko dundee suñu xol. dimbalante. te tenue boobu defe naa mooy duggaat biir bàmmeel yi tamit. mooy duggaat biir bàmmeel loolu moo tax euh, euh, doyen euh, ma may gën a remercier. Mm-hmm. ñi nga xam ne samay collaborateur ñi ma daan jàppale. li mm-hmm. ko dalee ci Mansour so nekkoon sama xarit. Mm-hmm. Martin Faye ma xam ko bu baax sama xarit la ba fi ñu nekk nii. Mhm. toujours ñu ngi mu ngi sama kër. Mhm. Eh, ñoom Ibrahima Sané mhm. ancien directeur. ancien directeur Oumar Seck. ñoom ñëpp ma xam leen. bokk ak ñoom aussi jeeta eh, ci fànn boobu. Jegandour. Eh, Philippe Diogoy. ñooñu ñëpp. dama leen xam comme ni ma la xam mm-hmm. euh, Adama Fall nga xam ne dafa daan wax ne euh, sama xarit Mamadou mm-hmm. foo bugg a def émission euh, man la ñuy jox Toyota bi may couvrir ce reportage mm-hmm. boobu dans les villages donc di nuyu ñëpp Marcel Ndione bi ma directeur nga xam ne émission bi ma defee woon Thiès ci seen dëkk la peyku mag ñi ñëpp toog mhm. waaw fekk mu ngi nekk directeur Pate Dieye Fall sol naa sama daal dem def reportage à Saint-Louis mhm. ak yeneen ak euh, yeneen xam naa daal xam naa euh, comme ni nga ko <laughs> xanaa ma euh. nuyoo sama bokku séeréer yi mhm. ndax loolu dina ci am solo emi kañit saafi ci jën saabi noon duttra palo sin si e eh, weeɗo ragna ini waɗ ɓorak ngol ec sukku woni ka innina heeɓo ɓaye fiki nani ka cacce tamɓe ɓe kukñafa ac sukkere kifsidere kipes waaɗeɗa innina he kaɗɗe saafi fiki e eh, nupto heɗa ini ɓahɗi ngal kolam ɓo hayndi woti fo hunnaɗo ngam in man an wotiɗa wote boyɗen saafe ko ɓe kuguccin saafe salmata yakkoca meɗe yipgan taskide ciyakakci ɓa metta eh, am tabker cangɓana wek ɓa mm-hmm. fonke ɓa tinɗe kahal o warta bohne ɓa tiinde ɓaah ɓa tiinde inamoɗe ngagol kahal ine moti émission gi met ko haɓit gang ɗe kenama se yarna mina martin fay kurnaliɓe ɓuuɓe ko kañam fat kattami ɓuuɓirani suɗoyah inen woni ini ina hotine kimrene inna mujen zafire bo ha hultide inna ina hotine e woni kenne wonɗa suɗokiɗɗe bo puliɗe fof ko ɓucin zaafi kimne finani ɓa nemin do ene rayandin saafi ɓa abawo san ken kehɗi e mi kañƴi ɗu e, jentikna e, kañe mi mamadou du fay kana wasse kiñaabo n was eh, eh, eh, popponge dëkk kiñaabul tudda ñi ko xamul soo da nga jógee Dakar soo paasee Diass aéroport nga ciy teg soo ñëwee am na yoon buy dem Popenguine soog a jubal Mbour suñu dëkk ki ñaaxul la tudd moom ngay mujje nga dem Popenguine waaye ba tey ci yoonu ki boobu am na ay petit village Soro Xasan géerew mi ngay dégg yëpp nga xam ne ci tefes gi la ne mu nekkee ci tefes gi noonu la Somone Ngappar euh, Ndaayaan Tubaab Jalaaw Send euh, ba Bargny xanaa rek ma euh, tàggook yéen rek Ah, di leen tàllal loxo mm-hmm. di ñaan jàmm ci senegal mm-hmm. di ko ñaan ci eh, monde bi yëpp mm-hmm. que feebar yu mel ne yàlla day wone boppam rek eh, nañu eh, yeesal njàpp nañu raxas xol yi suñ ko defee yàlla du binde doomu aadama ba pare te walbatu bi xeex ak moom mm-hmm. nañu seetaat suñu bopp xool yi su xoolee eh, su naka lañ koy waxee ne su mm-hmm. fekkee ne fu ñu xool mm-hmm. xool yaa ngi xool foofu waaw ndax sooy xool ba wóor la ne gis nga li te sax xool gisul loolu loolu du baax moo tax may wax ne suñuy xool na xool yi xoolaale ah foofu lay eh, daanale di ñaan yàlla rek mu guddal fan yi defal na mujj ko rafet musal ñu ci musiba ak bala ubbil ñu nag euh, yoonu xeewal xeewal àddina ak alaaxira jërëjëf euh, sunu papa Mamadou fay gis ngeen ko sunu doyen la juruñ ci métier mi doon journaliste nekkoon RTS jaar ci rajo yu bari macha allah def la tour du Sénégal ci def gëstu xam-xam ndax li may faral di wax rek euh, ku xamul sa démb moom doo mën a jëriñu sa tey kon xam sa démb dafa am solo loolu ba tax na concept émission bi tamit noonu lañ ko tuddee xam sa démb gëstu ci démb ndax nee naa li li li li li li woon ci mag ñi ñëpp mi ngi fi waaye ñun ñoo ko abandonné ñun ñoo abandonné suñu aada yi ñoo abandonné suñu cosaan yi kon lii soññaat la ci kenn ku ci nekk mu daw bàyyiwaat xel cosaanam delluwaat. gëstuwaat cosaanam te xam ni wax dëgg yàlla lépp itam ci biir ma mag ñi daal lay saafara woo gis ngeen ko fi mu li mu ci expliqué fi mu jaar ba fi mu yegg si ba dajee nitu yàlla mu yëkkati lam koy jox jox ko ko ba tey jii lañ ko joxoon moom mu ëlbatikuwaat di ci dimbali jaam yàlla yi mu mu bëri ci fi kàttanam toll ci xam-xam ci aar la ci musal la ci ubbi la kon ñëw leen ngeen gisee si ak moom am na solo lool macha allah rabbi ndax ku fi ñëw di xam ne fi daara la waaye tam fii ku fi ñëw di nga xam ne fii këru yërmande la euh, kon papa Modou fay ñi ngi lay ziaraat bu baax a baax. Bienvenue